mbay demal tok su ma toogee fii kenn du gis de. mbay demal tok bon mais man suma toge bi est-ce que dañ ma gis ah. demal tok démb le ma gouverneur wo ni ma premier ministre du Sénégal day ñëw ndar ci walum liggéeyu gouvernement bi lol bama ko waxe nak ñu convoquer réunion bureau rafet lu ko bu baax baax parce que yaakaar naa ni moom mooy génnam bu njëkk bo xamni def nak andoro Dakar bu neex yalla mën nañu waxu brèche bi mën nañu waxu l'école yi waaye dafa am point yoo xam ni dama ci insister bu baax a baax parce que lu taxaw la donc dañuy ñaan ngir yàlla yonent bi premier ministre bu ñëwee mu indi ñu solution ci wàllum assainissement des dix villes boobu mbir mu tàmbaliwaat pare pour soulager les populations de Pikine Saint-Louis gaz baa ngi fi nit ñaa ngi ñëw te ville Carrefour la donc dañuy ñaan premier ministre ak ñaan président de la république pour que les yi nga xam ni mooy les travaux hôpital maanaam Alioune Badara Cissé hôpital de niveau 4 nekk fële ci buntu Gandiol travaux yi mën a tàmbali. Fera dafa amoon mbedd yoo xam ne da ko. Euh, asalaamaaleykum sama gars yi maa leen di ziare di leen bégee di leen jox seen wàccuwaay yi euh, di leen dalal seen seen YouTube di leen wax ngeen di abonné ak di like euh, vidéo yi quoi damaa fàtte woon vidéo yi waaw di leen like vidéo yi. Eh, tay vidéo yi dee leen ko like gaay yi kafu nak dama kaful tay dama fa sama kanam wax ak yeen loolu leen like leen vidéo bo wala ma yamal ko fi du ko eggale fi la wax yamal mu jeex tak voilà like leen vidéo yi di leen wax ne ma nga and sëñ Moustapha Mbacke di sotti sëriñ Abdou Lahad Mbacke di kat bobu nga xam ne lépp lu jëm ci walu ngóore yalla may bu baaxa baaxa baaxa baax ku ci am jafe-jafe rek da ngay jokkoo ak sëñ Moustapha Mbacke ci numéro bii mais day ñaan tamit day li si xaar euh, Mansour Faye Mansour Faye dégg naa la ngay boroxlu dégg naa la ngay boroxlu nga ne waa Saint-Louis bu ñu bu pro ñëwee nañu génn tertu ko sa waay sa appel boobu jaru ko parce que waa Saint-Louis même boo leen waxul ñu génn dañuy génn. waa Saint-Louis boo leen bu bu mag Sall doon ñëw foofu nga ne leen ñu génn boo leen fayul ay 5000 5000 ay 3000 3000 ak ay t-shirt duñ génn mais kii soxlawul nga defal ko appel soxlawul nga defal ko mobilisation jarul ngay buroxlu jarul ngay buroxlu Mansour Faye yow toogal rek mëneel na koy fotow bu soobee yàlla waa Saint-Louis dinañ génn ba ñëpp xam ne ne waa Saint-Louis génn nañ maa ngi profité sax di leen wax ne Saint-Louis man incha allahu rabbi le 6 bii. ci mbale mi man Saint-Louis laay bale see incha allah bu soobee yàlla waa Saint-Louis yéen ñëpp na ma xaar bu soobee yàlla dinaa teew Saint-Louis ñëw bale si ba mu neex teraanga dégg naa ndar la fekk baax waa ndar xaar leen ma samdi incha allahu rabi le 6 xaar leen ma dinaa ñëw foofu laay balesee ànd ak pro ñu yëngal ndar yow Mansour Faye ma ñëwaat ci yow Mansour Faye bàyyil buruxlu jarul ngay wote gaay dinañ genn Saint-Louis ñëpp ngi préparé ñepp ngi wajal poro kon jarul ngay buruxlu ah, pareeguma ci yow fi may jéxalé ci yow moy dégg na la ngay yaa ngi buruxlu di gëna a dañ da ngay leen di ñaan euh, président de la république ak premier ministre xaw ma ñu eggale ab euh, hôpital euh, hôpital xaw ma c'est tur boobu nga wax noonu Alioune Badara xaw ma nan Alioune Badara Fall xaw ma waaw genre boobu daal genre tur boobu la wax voilà léegi yow hôpital boobu yéen yéen fi nekkoon bu yàggul dara lan moo tax defaroo leen ko lan moo tax ngeen nekk fi ay ati ati at douze ans defaroo leen ko. waxa rek ah essai yow dang may tond rek yow dang may wax la motax ngeen nek fi 12 ans defaroo len ko lutax tax president président de la république mu defar ko lutax yow jelo jelo sa xaliss bobu nga commencé lutax waxo premier ministre yi fi jaar yeb waxo len ñu defar ko nga ñew bëgg ñoy jaxase ak askan bi naan damay ñaan ku la di gis nak day nuru ne li ngay wax lu bax la quoi parce que da na affaire hôpital la waaw dafa bëgg ñu mais da ngay jaxase ñun xam lepp seen jeu yi yag ngeen ci da ngay jaxase danga bëgg a ñëw jël affaire bi pour eh, wax nii pour gars yi ne da nga soññ état bi pour ñu defar hôpital bi léegi askan bi bu ñu toogee ay quelque temps waxuñu ci hôpital bi ñu commencé euh, gouvernement bi lu tax suñu hôpital bi tabaxu ko fekk lii yow xam nañ li ngeen bëgg da ngeen di jaxase bàyyi leen seen yi ngeen nekk yéen fi nekkoon te defaroo leen ko kon yow boo amee message booy lancé lancer message bi sa bopp ak Ibou Ndafa ma ca France di liggéey cag-cag nga xam ne ndax sa da koy yónni rek muy dem ak a ñëw wax leen ak seen bopp ngeen bañu dama leen di wax foofu laa yem ak yéen bëgguma nag ngeen kii gars yi xaar leen ma samedi incha allahu rabi samedi saint wi dama fay ñëw yëngal ko ba mu yëngu incha allahu rabi ànd ak poro réew mi neex di leen wax ne gars yi dégg naa ne ñu ne ñi ñi ñi ñi wàññi bi am na ay gox ay koñ wàññiwul ak ay raison yu wàññiwul dund bi ba léegi képp koo leen dem di jënd ci moom nanguwul wàññi. numéro vert yi dégg naa woote ci dafa jafe ku ci woote ci numéro vert wu jotoo xoolal envoyé ma vidéo ki ki ki jaay ki jaay ki nanguwul wàññi jaay bi vidéo ko nga envoyé ma ko ma publier ko fi loolu kese la ko nga envoyé ma ko fii ma publier ko mu jeex voilà dinaa ko publier bu ma ko publier ñi ko war a jot dinañ ko jot après ñoom ñooy xool ndax lan lañ ciy def man l'essentiel li ma si man mooy kuñ ci ne wàññil nga bañ ki jël vidéo bi jox ma ko dinaa ko publier di ngeen xam ne yéen lépp dëgg la wàññi leen ngeen bañ yéen yéenay ñan. yéen ñi faré ci opposition bi que. man ci nguruk laa far de man bokkuma ci opposition de. Ah, ci ñoom Sonko nga far ci ñoom Sonko laa far de. ah bon. opposition mooy la. opposition mooy Macky man maa nag Macky Sall. Ah man Amadou Ba laa doon jàppale ci élection présidentielle yi. mais mais doo ma wax ne nag ñoom Sonko amuñu opposition. dama ne man bokkuma ci. wala ñoom bugaan nañu opposition man daal man daal xaw man daal man Cheikh Abdou Bara Dolly Cheikh Abdou Bara Ousmane Sonko laay jàppale. ferme moi xam nga xam nga Cheikh mi man dafa tax namatuma maître El Hadj Diouf quoi nee na moom bokkul ci opposition bi ci nguur gi la bokk yow loola ci boole yow loola ci yow te yam yow fii nga nekkoon barki di jàppale Amadou ba tey nga bëgg ñëw de bokk nga ci nguur gi bokkee. <laughs> na siya ang dubaro dari yan ang guduman no sa akin na guys yan sa bakal binag bilay <laughs> sa akin na ci état bi la bok ci nguur gi la bokk nee na bokkul opposition de ci nguur gi la bokk yow loola ci yow la moo la boole ci yow di rayante yaa ngi ni ngeen dem nga ne da ngay ànd ak système bi dem ba ci fin ba nga ak sawaay affaire yi cool nga bëgg a ñëwaat na ci nguur gi nga bokk bokkoo ci ñun koy xanaa ñu <laughs> ñoo lay teg nii di la désero di di la di la di la anti stresso nii rek mais mais bokkoo de waaw mu ngi koy dañuy da ngay remplacer El Hadj si ñun ba keroog muy ñëwaat xam naa nag daa xamagul lu muy wax koñ ba comme xamul lu muy wax waa koñ bi moo tax mënagul génn mais bu maître génnee da ngay dem da ngay dem toogi de waaw dañ lay jël di la wétalikoo nii rek nag di la di saa saa di kii di dindi si yow suñu stress voilà mais nag bokkoo bokkoo de waaw wax dëgg yàlla bokkoo de <laughs> temps ngay yor sa bal ci koñ bi booy football ak sa moroom yi su affaire yi commencé sof wala passe ñu la rek nga jël bal bi wala nga xool ki ci gën a lakkale nga ne ko yow moom bokkoo mais yow moom bokkoo bokkoo de. Mm, bokkoo. Mbaye demal toog. Eh, mais su demal toog. bon mais ah? demal toog. boo juddoo fekk baay mu jël yoonu mbalaago jéem ah, a <laughs> naman John Hawaii, guys. God have mercy upon us. naman John Hawaii. Naman Konstantin. No. Konstantin, Pak. Bagi Allah. 哎呦，哎呦，def noonu quoi kontaan naa ci yéen daal aw ma seen fay yàlla na yàlla fay. God have mercy upon us. yàlla na yàlla fay sama gars yi kontaan naa ci yéen seen taxawaay la yàlla na yàlla fay ko du fan ak wér. kenn fekk lépp. No. Eh, eh. Cheikh Sidil Muxtaar ñaan yàlla Cheikh Sidil Muxtaar ibnu Cheikh Mouhamadul Amin ñu ngi toog sëtam Cheikh Abdoul Aziz Mbacké borom fas nga xam ne da ko donnee ci ay maamam di fas gu baax ci néew kattan ak ngóora Cheikh Abdoul Aziz ana fa sunu fas gi